Abdou Ali lay nuyu maître am mbégte lool mm. dalal la ci Sénégal maa ngi leen di fay ci kontaan ci seen invitation. Mm. jërëjëf maître Amadou Ali Kane avocat nga euh, fii ci euh, Sénégal waaye itam euh, yaa nekk vice-président bu RADDHO rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme c'est bien ça waaw léegi suspendre naa suma activité ci biir RADDHO ah da nga ko suspendre ginnaaw bi ma duggee ci politique d'accord léegi donc nekkatuma RADDHO ah, parce que àndul d'accord d'accord donc ancien vice-président yaa ngi R3D. voilà regard différent mhm. pour un développement durable parti boo xam ne dafay prôner développement durable ñenn ñi di ko naan parti écologiste lu tax nga tànn euh, xeetu parti boobu li koy dégg Sénégal bariwul waaw xam nga continuation euh, combat bi may def ci wàllu droit de parce que ci droit de l'homme droit ci la bokk d'accord xam nga nit ki dafa am dund boo xam ne bu sell ngeen gis ngeen pollution bi am fii gis ngeen saleté bi yooyu yëpp dafay am conséquence mm-hmm. ci dundu nit ñi mm-hmm. loolu mu indi réchauffement climatique mm-hmm. réchauffement climatique indi érosion côtière maanaam glaciers yi di di di seey di fondre yokk layu ndoxu géej bi mu attaqué dëkk yi mu dendal nangu nangu ay kër moom moo indi suuf si wow dee lu loo loo fa ji du. du sax sax. ñu am problème mu dund. ñu am problème ah, dund loolu problème bu sérieux la. voilà loolu seen un problème sérieux hmm. loolu nag dafa laaj àddina bi yëpp léegi la ngeen suivre ngeen sommet bi amoon Dubaï. Hmm. COP 28 bi. effectivement yooyu lañ doon waxtaane hmm. donc suñ deful ndànk rek alors àddina bi mën na tukki. à cause de loolu pollution yooyu yi am. parce que dafa yàq couche d'ozone bi. couche d'ozone mooy. Euh, maanaam euh, rideau bi nga xamante ne moom la suñu borom def mu dox diggante naaj bi ak suuf si mm. di téye les rayons ultraviolets mm. xam nga léegi nag bu yàqoo euh, tàngaay bi day gën a dal te commencé na yàqu te commencé na yàqu donc foog ñu arrêté lañ ñu doon jàngal ne couche d'ozone boobu dafa fëq dafa bët voilà <laughs> dafa donc bu fekkee ba léegi ñoo ngi maintenir pollution boobu te amuñu benn solution ça veut dire que yëf yaa ngi gën a garaaw ñun nag ñun réew yu tuuti doole yi ñun du ñu polluer lu bëri mm-hmm. waaye nag ñun ñoo koy gën a sentir ñoo koy gën a yëg ci ñun lay gën a dal mm-hmm. loolu moo tax ñun nag lépp lu ñuy liggéey dañ ci war a sóoraale climat d'accord malheureusement nag c'est pas encore le cas mm-hmm. da gis par am ñu ne dañuy def cent mille logements cent mille logements yi fu ñu koy def dañu déclasser ay foore gor ay garab bëgg fa def ay logements déclassé nañ fi jamono yële ectare yu bëree bëri ectare yu bëri te garab yi nag ñoom ñooy absorber pollution bi ñooy absorber les gaz donc ñoom ñooy wàññi alors réchauffement climatique bi hmm. léegi ñun ñu ngi nekk di ko di ko gor di gën a exposer suñu bopp donc yéen vous projet du président Wade la grande muraille verte mais oui grande muraille dafa am dafar am malheureusement nag ñun amuñu ay moyens hmm. pour doxal ko mais def nekk loo xamante ne mën na sauver Afrique mën na sauver adduna bi yëpp hmm. on est favorable même président Macky Sall sax continuer na ko hmm. mais nag dafa laaj ay moyens foo ñu def ci ay moyens moyens yi nag ñoo barewul et puis bari ay zone yu muy traversé yoo xam ne jàmm amu fa hmm. xam nga tey boo bëggee saxal ay garab ci ay dëkk yu mel ni ay Tchad waaye ay Soudan mu am guerre civile <laughs> mënta ne xam nga <laughs> doo du yomb hmm. loolu aussi problème la quoi ci biir affaire bi d'accord maître Amadou Ali Kane Clédor Sène d'ailleurs mi fi jóge sànq mi ngi lay féliciter euh, ci yoon bi nga tànn di dugg ci parti écologique boo xam ne yaa ngi défendre environnement euh, di peut-être xeex ak sensibiliser comme ni nga ko defee nii ci problème climat yi nga xam ne dafa laal ñëpp parce que seetlu nañu tàngaay bi léegi ni muy méttee peut-être daawu ko méttee des fois tam mu sedd sedd boo xam ne dafay jéggi dayoo donc mm-hmm. loolu lu am solo la malheureusement on n'en parle pas beaucoup ñu ngi ci politique politicienne bi euh, mais li nga xam ciy dégg ñu mel ni yéen mais li tax tey ñu gën la dalal ci sunu euh, plateau matinal bi di Sénégal Matin mooy da nga euh, nekkoon candidat déposé woon sa dossier de candidature mm. euh, ca conseil constitutionnel mm. ca vague bu njëkk ba ñu contrôlé ca lañ la recalé mm. pour problème mu parrainage lan moo nekk dëgg-dëgg sa jafe-jafe lu tax jàlloo ci parrainage bi non man amoon naa sax le nombre bi ñu demandé parce que yóbbu naa fa cinquante mille cent soixante huit parrain. nga le minimum quarante quatre mille deux cent trente et la. Hmm. kon ndax boo indee cinquante mille romb nga loolu. mais nag dañu ci génneel ay euh, ay gant yu bëri d'abord dama amoon dix mille ci Saint-Louis ci benn région. Hmm. ñu ne ma dans la clé def mu tour bi donc duñ ko comptabiliser. touru région bi ah. donc d'office. génneel ma dix mille dix mille yooyu sànni nañ ko. sànni nañ ko. ma des ci quarante mille yi quarante mille yi des ñu ni ma am na dix huit mille yoo xamante ne gisuñu leen ci fichier électoral. dix huit mille. waaw gisuñu leen ci fichier électoral. muy vingt huit mille déjà ñu muy ne vingt huit mille douze mille nga dese. léegi muy vingt huit mille. waaw nga dese non non pas douze mille ah, des na encore. d'accord léegi vingt deux mille peut-être ko léegi oh, ok waaw léegi léegi loolu dem ñu ni ma xam nga man j'étais cinquième au tirage au sort. c'est-à-dire Boubacar moo jiitu. Mhm. ak yi bu kuma Soumaré topp ci. Mhm. Ousmane Kane topp ci. Ousmane Sonko topp ci ma nekk cinquième. yàlla dogal après Boubacar Camara ak yi bu Soumaré ñëwul ñu contrôlé ko parce que dafa amoon lu ko manqué woon. Mhm. Euh, Ousmane Kane ñu ne amul woon caution ñëwul Ousmane Sonko avocat feebar. donc du coup nekk deuxième. bien deuxième la ñu génneel ma aussi neuf mille cent doublons. <laughs> ñooñ fu ñu dugaloo parce que le cinquième. Eh. di eh. ñoo ko niroole. le cinquième ci li ko niroole. yemul ñu ne ma ci suma biir fichier. Eh. dama yor cinq mille cinq cent doublon interne. maanaam nit ñoo xam ne dama leen ko indi deux ñaari yoon. te ñun dañu yore woon benn logiciel. Mhm. boo xam ne day détecté doublon bu ñu la bindee deux fois rek. da koy rejeté d'accord donc normalement waru woon am loolu donc de fii en aiguille daal éliminé nañ ma daal presque quarante trois mille. nga dese ñaata à la fin sept mille à la fin. alors ci noonu nag la dama invalidé léegi nag man je me suis écoute man dama gëm yàlla dama def benn recours. doo def recours. dama def danaa ne c'est la volonté ce que da nga jàpp ne kon normal na li ñu wax loolu la. non man d'accord ma ci d'accord ma ci mais recours bi dama xam ne du mujj fenn man gëmma recours bi mujj fen lu tax. mais parce que déjà gisuma teg sax bu prévoir recours ci loolu parce que là c'est une commission de contrôle. oui na mhm. conséquence moo ko samp. Mhm. c'est des ñu ngi liggéey ci fichier boo xamante ne kenn xamul lan moo ci ne. ñoom rek ñoo xam fichier bi da ngay yow ne la écoute ñi nekkuñ ci fichier bi yow doo gis fichier. amoo fichier bi léegi yéen réellement euh, hmm. ndax gëm ngeen ne fichier boobu sax baax na. est-ce que am ngeen gëm ngeen ne fichier boobu ak fichier bi nga xamante ne moom lañ nar a woote en 2024 c'est le même. xam nga ñoom dañoo amul fichier sax. xam xam nga le problème c'est que fichier bi kenn amul ci accès. kenn amul accès ci fichier bi et ça un grand problème. parce que yaa ngi liggéey ci loo xamante ne xamuloo nu mu mel ñu ngi lay contrôler ci loo xamante ne yow gisoo nu mu mel yow da ngay ñëw rek ñu la écoute am nga indi nga trente mille trente mille gis ñu leen ci fichier doo mën a vérifier. Hmm. da ngay encaissé rek. wala ñu ne la woy nangam nangam tak tak tak am nga quinze mille doublon trente mille doublon loo ci xam. léegi yow est-ce que euh, voilà da ngeen a jàpp ne c'est peut-être une volonté quand même de ña nga xamante ne commission de contrôle bi pour éliminer quand même des des des mm. parce que tey mënoo nekk. quand mm. ci deux premiers yi nga ne ñoom la ñu contrôlé on te sort <laughs> ñaata nga wax 9000 presque doublons yoo. xamante ne xam nga xam nga man li ma jàpp moo di nekk filtre baax na. Mm-hmm. ci réew buy def démocratie. Mm-hmm. parce que war nañu mën a segg. Mhm. loolu jaadu la mais filtre bi ñu choisir maanaam parrainage nekkul filtre bu baax dox mhm. nekkul filtre bu baax ñu ngi koy xamee ci biir collecte bi ci nit ñu koy collecté déjà mhm. dafa lëndëm collecte bi déjà nekkul transparent dafa lëndëm parce que nit ñi dañ koy jaay foo dem dañ leen ne yow loo may jox yéen da jënd ak coono maanaam non jënduma mais man j'ai mis des gens yi ma wutal par exemple si tu es un bu un marabout indi ay taalibe hmm. jox la ay carte seen carte d'identité ak yeneen donc dama la wax ne rek nit ñu koy wutee bari ay pexe yi ñu koy wutee yoo xamante ne man nga am un grand électeur mu dem indi la hmm. ay nitam man nga am groupement de femmes ñu ñëw jox la